kan mooy Sadikh Thiam bu seri Babel ñu bëri nag fii la ñuy xamee seen acteurs yi dëgg-dëgg ci liñ daa yëngatu ak fan lañ commencé merci sama gars yi gis naa abonnement yi gis naa encouragement yi ak tamit mi ngeen may félicité merci beaucoup dëgg-dëgg di Adama Dieng mu Serigne Saliou ñu bëri xamu ni Sadikh Thiam mi waykatu diine la ñu fas yéene sant Serigne Saliou borom jamono xasida yi ni mu neexee ku ko jàngul du ko seedee dafay féexalu xol dalay may leer nga doon ko nu ràññee xasida ni mu neexee ku ko jàngul du ko seedee dafay féexalu xol dalay may leer nga doon ko nu bu dee mooy bu nafiw bëgg naa jës bu mu xadimatul am li ma wona tama dëdd sama àdduna jublu Bàmba rekk wóor maa ngi mel ni mel ni mel ni dof ngir bëgg la xam naa nu yaa nu gindi bàyyi saal aminu yaakaar waaw loolu tax mu dëppee boppam sax Adama Diagne bu Serigne Saliou moom sa jëccaam dafay way lii nga xam ne nag moom la ñuy wax ay wayu diine maanaam ay cant ak lii nga xam ne aussi mooy ay wayu xaata mi ngi dëkk fii Sénégal Dakar ginnaaw raay waaye nag mi ngi yaroo fii di Saint-Louis foofu sax la jàngee lii di alxuraanul karim moom Adama nag teel naa pratiquer lii di théâtre ak lii nga xam ne aussi moom mooy méccum tailleur ndax mi ngi ko jàngee foofu noonu ci diwaanu Saint-Louis théâtre nag yu bëri xamoon nañ ko ci moom nag yàgg naa joué lii nga xam ne aussi moom mooy ay théâtre ndax boo xoolee ay vidéo yu yàgg sax def ay comédie maanaam di jaay xaal di yëg ci concert ay comédie waaye aussi def ay vidéo tamit ci ay cinébam ak ay tiktokam waaye ñu bëri nag ci way Serigne Saliou ak ay Serigne Fallou lañ ko gën a xamee ndax moom ëttu ngéwal la yaroo te ngéwal sax la bokk te doomu géwal su wayu rek dina fecc baa mu def lii nga xam ne aussi moom mooy ay zikkar styliste la ndax dafa yàgg a jàng méccum tailleur ba tax na sax lu bari moom moo koy ñawal boppam te aussi dafay ñawal ay nit ñi daal di sol théâtre tamit yàgg na koo pratiquer waaye nag joxu ko woon gëdd ba wër casting nag la ñëwee par mbaro di bokk série bi ñuy Baabel la ko Sénégal ñu bëri commencé ràññee Babel nag mi ngi ci tudd Sadikh Thiam mu joué benn rôle bi nga xam ne nii dasee nekk ku am ñaari jabar waaye respecté kenn kenn respecté wu ko mu nekk benn série bi nga xam ne nii moom Sadikh Thiam dasee nekk benn góor yàlla bi nga xam ne dafa bëgg a wane toujours njàmbaaram ak di fësal tamit lii nga xam ne fi la bokk muy tëgg dawul mbaar incarné ci rôle bi nag rôle kilifteef maanaam ku bëgg doon sa papa maanaam topp say tànk papa boo xoolee Sadikh Thiam sax loolu moo ko gën a sonal série bi parce que nag dafa nekk lool ki nga xam ne nii dafa teel a roy papa mu feer ci lool ba tax na yenn yu bëri ciy dugg sama gars yi tey nag sa def caamee indiloon di leen rafet lu baax a baax ci moom sama gars beneen yoon incha ñu leen di wax ni bu leen fàtte abonné te bës kolos de notification bi te ngeen wax ñu ci commentaire yi yéen artiste ak yéen star ngeen bëgg ñu seeni jaar-jaar kon nag fi la ñuy yem ba beneen yoon ak authentique pro siwal sa business siwal sa business ak authentique pro yow miy jaay wala liggéey bu mu mën a doon nga bëgg mu siiw léegi léegi léegi léegi jokkool ak authentique pro defal la ci sa contact dugalal la ko ci seen page YouTube ak authentique pro daal dina yombal sa business